li leen wóor ne tafaay bamba dooma xam baay ne moo namp ci meenam ba fer ba mat waay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jéem ñu tëj kër ga ca njaareem ne dund day jéem qabiltu dikran jaani min rabbi walil jinaani qaadani bil hubbi qabiltu dikran jaani min rabbi walil jinaani qaadani bil hubbi barakatul qur'aani xaalat bayni wa bayna kulli dararin wa xayni lam yanxuni maa yudxilu niiraana wala layaadun yujibu alqusraana tawfiiqu man laysa lahu kufan ahad li gayri nahwi daba kulla man jahad wajjahtu kulli lil ilaahi wa rasuul مع الكتاب ووجدت خير رسول ورج لخير جهة القهار صون هواه ليل أو نهار دم حياتي لحياة الله yàlla yàlla yàlla bu baax yàlla yàlla jërëjëf di gën di gis. jërëjëf jërëjëf maa ngi jégalu maa a jégalu a nekk ci ndox yi rek maa nekk ci ndox yi rek jërëjëf jërëjëf nag jërëjëf na ngeen di sant yàlla baax na ah yow dañuy sant yéen sant yéen yéen dañoo sant yéen dañoo sant yéen dañoo sant nag ci yéen bu baax a alhamdulilah jërëjëf noo noo gis nga ñaanal lu ko tax moom li muy wax li muy wax mooy tool yi si tubaab moom sax loolu xool na la si tubaab looloo koy ñaanal ah ndox waaw koy si tubaab moom moo ñaanal bopp alhamdulilah jërëjëf حبي له وللرسول والكتاب عدم عمري من أدم ومن عتاب محمد صلى عليه الله مسلما كشف لي علاه دلني الله على محمد وخادني محمد للسمد دلني الله على محمد وخادني محمد للسمد جلني الله على محمد وقادني محمد للسمد لم يخف كوني قليلا حبا لله والرسول لن أصبا لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو ذو حدد أنين أو لم ينحني من لا يرى بتائب wa kutubi nafat an am sëñ Saliou waaw yi nekk ci daar yi tey dal da leen di foog mhm. day wax fii ci bàcc na bul fàtte ndabul daw ko ndabul daw te noonu ko <laughs> ko yow mii moo la dal ci <laughs> waaw waaye nag bul fàtte ne sama sama maanaam daa ko war a mel ni ku xaw a mel ni ku xamul dara te xam dara. ay waxam xam nga moom nga ñu. xam nga ay waxam. man ju'ila nuura al-kawni ahmaduna al-muxtaar qaada lil-bushraa wa yumnahu alaa hayaati an-nasar karaamati qattu yadi wa jaada alqatu li bima hawal injaada مددت يدي وجادا ألقت لي بما حوى الإنجادا ثبت للإيمان والإسلام ثبت للإحسان لا ألام وردم ربي من لعن لي حفر ومن قلأ ومن وشاء ومن كفر هدم باق لا يدال هدما بنا عدوي إلا يزال نادما محمد صلى عليه الله jërëjëf rek yàlla def amiin amiin loolu yëpp la ne day bis bu tàgg waaw lépp xaj na ci alhamdulilah bis la boo xam ne loolu moom attan sax bi su ko baax ginnaaw sëñ boobu moo doon bis bi moom gën a ci bisam ah, waaw waaw bis bu gën ci bisam moom loolu muy def moo ko waxoon am lu noonu moo tax it muy mel nii waaw dafa jàpp ñu ko

Monsieur et bien العالمين أدخلت لكلكلي أسراره فدخلت ردت كتابتي لغير نحوي أدن حياتي وأنير نحوي jaadali alwahaabu fi urudi bi muxjili almuflixi fi alxaridi yansajimu albayaan walbadiu lima ilay aqaaduhu albadiu yansajimu albayaan walbadiu lima ilay aqaaduhu albadiu wasala lilmantiq walmaani maalu suuli poiri del mooy leen wóor ne tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jee ñu toj kër ga ca njaareem ne dund day jee